bismillah alhamdulillahi wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi al axyaar wa sahabatihi al abraar wa azwaajihi al athaar wa taabiciina lahum wa man tabicahum bi ixsaanin ila yawmi ddin amma bacd asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. sama kàddu yi maa ngi ko jëmale ci mbooleem sama uxti fillah waaye di ko tàllal loxo di ko ñaan ngalawaay na ko déglu yow sama uxti fillah yaa ngi ci fukki fan yu màgg yu tedd yu bari ay ngëneel yow sama uxti fillah yaa ngi ci fukki fan yoo xam ne dafa gënal borom bi subhaanahu wa taala jaam bi ay yiw daa gënal borom bi subhaanahu wa taala jaam bi yokk ay jaamoom ci di ko jéggalu doon koo xam ne day tuub doon koo xam ne dafay reccu daa gënal borom bi subhaanahu wa ci jaam bi mu doon koo xam ne day gën a jege boroomam waaye day gëna takk laxasaayam ci feddali kóllëreem digganteem ak boroomam ci nangu koo jaamu ci nangul ko ci ommatul ko yow sama uxti fillah daa gënal borom bi subhaanahu wa ci jaam bi mu dellu di ko weetal muy di ko kennal daa gënal borom bi subhaanahu wa taala ci jaam bi mu doon koo xam ne day bàyyee xel digganteem ak boroomam subhaanahu wa yow sama uxti nanga nga yëg ne borom bi subhaanahu wa taala dafa bëgg nga dolli fàggu ay yiw ci fukki fan yi ñu nekk kon dollil fàggu ay yiw nanga nga dellu ci jéggalu sa boroom na dellu ci tudd sa boroom nanga nga dellu ci sàbbaal sa borom subhaanahu wa taala ndax yaa ngi ci fukki fan yu màgg yu tedd yu bari ay ngëneel kon góorgóorlul ci temps bi nga xam ne yaa ngi koy am kon sens bii nga am ngalawaay nan ci profitoo ba bum la rëcc xam nga ne doomu aadama day ab defkatu bàkkaar la doomu aadama day ku njuumte ati i rëcc-rëcc yomb la kullu bani aadama xataa wa xayrul xataa'iin at tawaabuun waaye lan moo lay dimbali nga doon ab tuubkat yaa ngi dundu nekk ci kaw suuf saa su nekk buntu tuub di ubbeeku sa kanam kañ lay tëju xanaa boo demoon ba nga xam ne yaa ngi egsi ci waxtu bi nga xam ne ci ngay deewe borom bi mu ne afala yatuubuuna ila allahi wa yastaghfiruunahu wallahu ghafurur rahim ndax doo tuub ndax doo leen tuubal seen borom kon ndeysaan dangay ngay sentir ne dafa ànd ak ñeewant ci ay jaamam ndax doo leen tuub ngeen jéggalu seen boroom lan la ca teg boroom bi day xafuur kuy jéggale la waaye ku bari yërmaande la nga ciy déggee ne sens boobu ci jamono bu nekk borom bi subhaanahu wa mi ngi la koy ubbil kon góorgóorlul nga dellu ci tuub góorgóorlul nga gaawantu ci ay jëf yu baax la nga bokk ci ñi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala da leen di jéggal